situation yu mel nii te fii ñu ñëw tey di benn rek ci yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na fii ci banlieue bi am sax biir dakaar am ci région yi euh, du situation boo xam ne benn doomu aadama war na koo souhaiteel moroom doomu aadamam rawatin nag benn nit bu am gëm-gëm ak diine ko bokk mun koo souhaité sa moroom bu am gëm-gëm ni yow moo tax rawatina nag boo nekkee acteur politique am loo woote ak am ambition ci réew mi boo gisee yu mel nii day fees sa xol euh, waaye gannaaw bañ ko déplorer euh, dañuy wax rek yu mel nii daf ñuy gën a soññ ci combat bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex ndax lii dafa wone rek tële goo xam ne ñii ŋànk réew mi rawatina ñi ko yor ren ñi ko royet ci jamono ji waaye ñëpp xam nañu mbirum inondation Sénégal doorul ak régime mu Macky waaye dafa wane rek nit télé bi nga xam ne wane nañ ko ci anam gu mel nii ci loo xam ne ñun jàpp nañ ne lu yomba rek la woon la suñu toogee nag ba gis tey ñu ne ñu bëri ci ñu fi nekk kiit génn nañu seeni i kër bàyyi fi seen i bagage dem ut fu ñu làqu ñoom sonn nañu waaye fu ñu làqu di ji ñañ fay fekk sonn nañu gis ngeen léegi gis nañ ci xale yoo xam ne ab gaz lañu yenu di dem doxi kursu seeni waajur loolu kuy nit rek kuy nit rek ci Sénégal vingt-et-unième bi war na la naqari lool lool lool lool rawatina nag bu dee da nga am ambition ci réew mi di leen masaw donc euh, di ko naqarloog yéen di leen wax ni li lepp nak dafa am responsable dafa am responsabilité yu ñu wara a ta ñay responsable bi tay ñom ñinga tok ci seeni palais ndox jegewu euh microbe jegewu leen ñu ci situation difficulté déggu ñu bruit pompe réew nak boko ko bëggee jiite li ñu wara ñëk ci yow moy lo yéné sa bop rek nang ko yéné wa réew ma wala sax nga war a su dee lu baax dafa am te doyul nga war koo bàyyil waa réew ma di xaar yow ba beneen mat njiit noonu la war a mel waaye na dañoo nekk ci ay réew yoo xam ne ñi ñi teg ci bopp réew mi ñoom bu li naan bu dëmm naroon am dëmm du nit buy lekk moroomu nitam waaye dëmm mooy koo xam ne li ñëpp bokk muy alalu mbooloo mi yow nga na nga ñeme ko akimo yow dong ak sa njaboot ak say akimo dem weesuwul loolu